mu am benn système euh, euh, permanent solide de financement de la protection sociale système boobu nag le président bi di dënk sama sama département may liggéey ak yeneen département yu concerné mooy département équité sociale département de la santé département de la famille département du travail ñu liggéey ensemble pour proposer benn loi boo xam ne mooy li ñuy wax loi de financement de la protection sociale mooy naka la ñuy def ba nga xamante ni man mi mooy liggéey ma nekk ministre wala keneen mii nii euh, euh, patron yële yu toog patron yi patron ñoom aale surtout patron yi ñàkk la ñuy def ba xam ne ñoom dinañu mën a cotiser si loolu parce que ñoom dañu duñu toog rek réew mi jox leen lépp ñu am lépp am nekk milliardaire di toppatoo seen njaboote rek déedéet dañuy contribuer pour que si li ñu contribuer lu li ñu contribuer loolu ñeneen ñi mën si am protection boobu